salaamaaleykum chers internautes Médina TV ñu am mbégte ak contentement di leen dalal ci seen seen leader ah tey nag ñu ñëwoon seet si l' international poko incontournable Paco Jackson Thiam ñu woon fekk ko fii ci goxam xam nga waxtaan ak moom nu muy dundee koor gi xam nga am na œuvre sociale yu bëri yu mu def macha allah ndax yooyu aussi ça a souligné comprendre nga Paco ñu ngi lay nuy di la char ah Fadou Love doomu Médina borom kusum maa ngi lay ziar di nuyu bépp doomu Médina diaspora fu mu mënti ne maa ngi lay ñëw jox la loxo di la nuyu xam nga di leen wax yéen a ngi jàppoo xolu jàppoo donc euh, maa ngi nii quoi toog xam nga rek ah di xaar xam nga ah ñu tontu waaw. mais Paco noo entamé koor gi parce que gis nañ ne chaque jour macha allah yaa ngi fi nan ngay dundee koor gi quoi yow personnellement. waaw xam nga cheru Ramadan comme li ñuy wax. c'est moment de partage am nga a seet si mbokk yi seet si mbokk yi xam ah, nga jàppalante solidarité vivre xam ah, nga li ñuy wax vraiment yëfu julit dugg ci kër yi nuyu nit ñi baalante àq bi xam ah, nga man noonu laa koy defee quoi man vraiment xam nga te aw ma lu gën a rëy Médina moo tax chaque fois maa ngi Médina daal xam nga di jàmm sant ak gars yi quoi. ñun dañu yàgg wax ni que quartier social living la xam nga dañuy social bokk ndey bokk baay ñun Médina avant loolu la woon xëy na Médina léegi moo commencé xam nga indi beneen beneen xar kanam xam nga mais ñëpp xam nañ ni que ah Médina gars yi xam nga xam nga noonu la mës demee daal am bokk xam nga rakk topp mag xam nga mag topp papa est-ce que comprendre ñun noonu la ñu mës doxalee xam nga affaire sociale pour nga def ko il faut nga dund ko xam nan la xiif di def ci nit xam nan la ñàkk di def ci nit xam xam nga lan mooy partage nga koy def ak ñi nga xam ni yéen a bokk gox parce man dama jàpp ni tey soo amee lu neex ah ñëpp dañuy ñëw bokk ak yow soo amee lu naqari tamit ñëpp dañuy ñëw naqarlu ko ak yow donc ñu ñëpp ay mbokk lañu moo tax dañu war a dawal social living boobu bokk ndey bokk bàyyi te bàyyi yenn détails yi man dama remarqué léegi depuis quelques années booy Médina yi dañuy dugg ci ay détails yi te loolu baaxul góor du bëri ay détay yi góor da ngay am fulla am fayda di dox ci l'essentiel bul gérer ay détails nit soo buggee ñu nawlu la respecté la bul gérer ay détails su fulla jotee daf ko xam su heure bañ jotee ah ku nangu da nga war a xam nga da nga war a génn gox bi est-ce que nga xam nga mais léegi wax ji bëri na bin Médina mbele mbele gi du jeex ah ay ay détails loolu warul loolu warul xam nga dañu war a jóge ci loolu dem ci leneen xam ni tey ah suñu avenir moo nekk en dañu war a xool lan mooy enjeu bi xam nga pour Médina Médina ñëwaat nekkat ci kanam nekk quartier phare Médina mooy quartier phare u Ndakaaru comprendre nga ay nandite fi dëkk ay doomu nit ñu baax fi dëkk mais lu tax ñu bëgg a tàmbal bëgg yawadi yawadi ah, lan la ñu ah? ah yawadi suñu bopp pour lan lu dugg ci ay détails ay wax yu amul bopp amul genn nit day wax ful ak fayda su paree ñoo xam ni kii li muy wax lu takku la ñu avancé waaw xool li gën loolu la quoi. waaw Paco dafa am loo xam te dañ ciy ñëw parce que ci weeru koor lañ leen ndeysaan ñu gis ne monsieur le maire Bamba Fall de passage fi jaar démb. nga rafetlu ko en tant que jullit ak moromam lan mooy sa relation ak monsieur le maire Bamba Fall. waaw xam nga monsieur Bamba Fall mooy le maire de la Médina te su dul dara sax li ko yàlla daf ñu nangul ko ko xam nga man dama mës a respecté ay institution maire la et puis mu ñëw nekk sama xarit xam nga Bamba man li ma ko mën a seede rek mooy relation bu rafet bi muy doxal sama diggante ak moom. xam nga man nag nga baal ma faada man ganaaru kenn nenu ma du kenn kuy taxaw ci réew mi ni yaa may jox dépense est-ce que comprendre nga non damay am ak yow relation yu rafet ah ñu dox ànd ci gis nga soo teggee sa tànk ci relation yu rafet yooyu non ma teggi sama tànk parce que man ñàkkuma fayda judu na fa ma war a juddoo màggee Médina diggante jàppoo ak kusum donc dama xamul lu may daw bay daanu est-ce que nga ñëw na fi fekk may def social comme d'habitude mais maanaam moom dañu sekk teranga Bamba Fall moom lu muy def daf may ma dem man lu may def aussi dama ko invité mu ñëw mais démb woo na ma téléphone ni ma moo président man ko wuy moo maire xam nga mi ne ma ñu naa fa jaar parce que vraiment il faut que ma jàppale booy ci seen ndogu bi man ko soo ko defee daf nga lu rafet ya yaay le maire de la Médina dinaa la xaar mu jox ma heure ma toog xaar ko bi mu ñëwee aussi wax na fi kàddu yu rafet nee na Pago Jackson Thiam wax moom politique boolewuñu sama xarit la dafal na ma teraanga bu rëy bu ko marqué moom tamit ma wax ni ko Bamba Fall dafal nga ma teraanga bu rëy bu ma marqué xam nga ñu def échange de et puis mu suñ diggante vraiment Bamba musul depuis élection yi jàlloon vraiment respect la ma jox daal es ce que comprend respect petit frère grand frère aussi man tamit ma delloo ko ko mais nag loolu terewul ah man ak moom bokkuñu camp moom wax na ko parce que koo bokkal camp dooni politique boole wuñu amitié moo ñu boole comprendre am gars yi fi ñëwoon presse bi presse Médina bi bi ñëwee ñoom bi ñuy dugal élément euh, monsieur le maire mais li ma ji xaw a jaaxal mooy ñoom dañ ko dagg dugal fi maire waxee juste euh, que euh, président xam nga sama xarit la mais waxuñu bi muy wax ni par exemple politique boole wuñu parce que am na ñu may interpellé di ma laaj ndax da nga da nga da nga rejoindre camp wu Bamba Fall man ko mais Bamba Fall quand même même dans l'adversité on a de très bonnes relations sama xarit la man du ma toog ba tey may niyee ni sama xarit loolu góor moomul loolu mais bokkuñu camp politique man li ma wax mais dañ ko dagg est-ce que dogguma la président est-ce que nañ xam nan nga bëggoon développer parce que on dirait que li nga bëggoon wax foofu employé yoo ko wax bi yeggul daal parce que xam nga ndeysaan booy wax booy dañuy gis ne de telle sorte dañu lay estimer de telle sorte que dañuy yuuxu quoi te doo pare. non sax kii kii kii doon interviewé ah, parce que maire dama wax rek maire nandite la ba ma Fall ku jàpp ni dof la ndax nga sa bopp ngan nandite la parce que dama yëkkati rek moo mu mbasa parce que da doon bañ xam na fa ma doon jëm parce que dam lay defal historique bi temps yële ci ginnaaw dafa amoon terrain affaire terrain bi amoon ñun ñu jël position mu indi problème au niveau de Diapo parce que am na ñenn ñoo nga xam ni aussi donc ci mairie ba la ñuy liggéeye ñoom dañ jëloon position par rapport que li ñuy liggéeyee mairie man ma jël position par rapport ak euh, xam nga la Médina comprendre bi ma jëlee position par rapport ak le reste de beneen moitié Diapo bi mën naa wax comprendre mën naa wax sax deux quarts wala trois quarts jàppo bi ma jëlee position dama ne woon que man maire bi muy dem di wax ni dafa bëgg dafa terrain bi man dama ne woon ànd naa ci parce que ñun Médina dañu war a am terrain gazonné affaire yooyu mais xamuma woon les tenants et les aboutissants ah ci affaire wu xam nga xamuñu woon les tenants et les aboutissants ci affaire du terrain bi xam nga après ñu def collectif waxtaan ba ma xam lu leer xam position yi ñoom ñi nga xam ni nag bokkuñu woon ak man position man maay le président de l'ASC Jàppo dañ ma woo benn jour ñu ne ñoom dañuy def conférence de presse man leen su ngeen di def conférence de presse bu leen ci tudd ASC Jàppo am ngeen droit ngeen def conférence de presse ba l'an quarante neuf mille quarante mais bu ci turu Jàppo parce que Jàppo kenn du ko politiquer muy ni ay cow bu muy ne ay coow am ñoo nga xam ne dem nañ di jëm a jéem a jaxaseeg maire bi dem ma nag ma gis leen fii ma ni Bamba yow nit ku baax nga yow doo jaxase doo ruube doo seytaane maire nekk nandite mbasa micro bi parce que non dama doon fu xotteeku laa doon jaar est-ce que comprendre loolu laa doon signaler nag pour won leen ni que man dunduma leen parce que seen patron ngi nii sama xarita waru garam lu mu war a def da koy ñëw def parce que maa moom jàmm lañ sëkk est-ce que comprendre loolu la demee waaw donc rallié wu ma benn camp aw problème ak maire sama xarit la nit ku baax la parce que mënoon na ko ci bañ a fekk du moom rek moo moo moo moo moo wutu moo wuutu moo bi. en moom noppal na ñëpp nee na moom politique boolewu leen mais frère am nga. mais mais bien sûr mais moom Bamba Fall musul musuma am benn. dëj wala dara ah mu tànkam lu ko wala kenn du ko fi jiitu mais vraiment aussi nit ko nga xam jox na la cër jox na la respecté na la mais man tam dam ko koy delloo sama xarit la léegi affaire mairie bi su ñu yeggee ca cappaandaw ga duma ku mën sa morom duma jeex na mais soxlawul ay xam nga brouillon bi parce que il fallait ñu xam ne que man man quartier bi ah quartier bi ñoo ma fal pour ma gérer leen seen ASC donc kenn du jël ASC bi di ko politiquer du ma ko nangu ba pare amoon na ay wax yëpp a génn ba ñuy def allusion ci man am na sax ñu ne ñoom lu leen neexee am ci quartier bi mais waxuñu dëkk man li ma neex ci am parce que man la ñu fal du ñoom la ñu fal Macky Sall moom la ñu fal lu ko neex mooy am ci kaw mu teg ko ci ci yoon man ci kaw ma teg ko ci yoon aussi est-ce que comprendre nga man. suñuy suñuy jéem a indi ay genre ruube mais loolu xanaa tey la ñuy indi ruube man quartier bi dama jox nit ñi respect nit ñi jox ma respect comprendre man ñàkkuma fayda man ganaaru kenn nenu ma kenn dirigé wu ma président Macky Sall sax dirigé wu ma est-ce que nga man non dama gëm suma bopp est-ce que nga jox ñëpp cër respecté ñëpp mais xoolal ku ma xotti mbax ma rimbax mbax loko ba pare fekk la fa nga ne barke yónit si waaw mais Paco yaakaar naa éclaircissement yi leer na nañ waaw parce que fii la lépp di leeree maintenant tamit poko bëgg nañ xam aussi ndeysaan sa diggantaak ak Cheikh Ba Messi sa diggante moom lan la gis nañ ne am ngeen complicité macha allah lan mooy sa diggante ak Cheikh Ba non xam nga Cheikh Ba moom suñu diggante li ko sabab sax mën naa ni lu naturel la Chaba bi ma koy xam tey ma jox leen révélation bu garaaw Chaba bi ma koy xam dama fekk man ma nekk pale toog président de la république xam nga mënoo toog ci ci ci ci site yeeg di di wax lu la neex fii dëkk de droit la sooy raconté loo xam ne amul dañ lay jël si bu la ci kenn cybercriminalité mi ngi toog di xool site yëpp ak lu nit di wax je parle à la première personne de cette république mooy le président de la république président de de ce pays. dañ toog di waxtaan mais xaw ma woon Cheikh Ba barke Seydina Mohamed xaw ma ko dama koy doon dëkk man ko président sooy ut jàmbaar jàppal sooy ut nit ku jub jàppal sooy ut gor jàppal que. déggoon na écho yi nit ñi doon et puis nag fii kenn mënu làqatu ku fi def lu baax ñu xam ko man du ma xoolal du ma ni kenn yàllaa ngi lay nuyu te gisuma ko man defe naa dégg nañ ma ay balaa ñu fi dégg ñu bëri fii Médina est-ce que comprendre nga ci fula ci fayda kenn musuma dégg ci lu ñàkk fayda est-ce que comprendre nga faada c'est important nit ñi xam comprendre nga doxuma ci yooyu ma défendre le fils de la Médina bi ñu doon wax foofu te li ma ko défend yëpp àdduna wóor na ma ni li ma wax yëpp nit ñi doon moko wax lu am la Chaba kan mooy mën a taxaw fii tey di wax du nit ku baax Chaba kan mooy mën a taxaw fii di wax du def social Chaba kan mooy mën a taxaw fii di wax du utal booy liggéey Chaba kan moo mën a taxaw faa ni taxawut ci soxla jaam yi et boole ji nekk nit ku yaru gars yi nag xam na lañ ban différence la ñu xam nit ku yaru ak les bonnes manière ak nit kuy mbelelele di wax rek champ éducation may ko yenn comportement yi parce que c'est une personnalité de cette république nit ku yàlla cëral la donc xam naa nekkul ci ay détails tant pour lui mais man sama xarit la et puis Chaba xam naa xam famem frère am grand frère bi mu nekkee Paris Amadou Diaba mais Amadou Diaba euh, sama grand frère la mais sama xarit la woon on était on était trop proche pendant des années Paris ñoo doon bokk di añ di reer comprendre nga plein de lien yoo nga xam ni daf ma lie ak Cheikh Ba comprendre nga mais loolu la rek ba pare ñu bokk leader Macky président Macky donc. bokk Mbélina moo xam mënuñu ko séddoo est-ce que comprendre nga donc Chaba naturellement lañ nekkee xarit mu respecté ma ma delloo ko cër boobu parce que c'est quelqu'un de très respectueux comprendre mais man musuma bouger man dama ko dinaa la jàppale ci man li ma mën maa ngi ko ci jàppale waaw Paco gis nañ ne aussi da nga am complicité bu rafet ak jeunes yi ah du ne jàppoo maintenant la wax quoi mais plus précisément aussi jàppoo parce que gis nañu yaa ngi dem un peu ci koñ yi booy yi di booy yi yow sa koñ kusum ah suñu koñ su ma fa duggee sabar bu tas la yow xam nga loolu parce que nag foofu laa màggee aussi mais booy dañuy gis seen bopp ci man rek mënoon naa daw booy sincèrement ku ku nga xam su bëggee toog a président toog a président. mais da nga fekk mu toog ak ñëpp maasoo ak ñëpp yamandoog ñëpp bokk ñëpp ndey ak bàyyi loolu dama bëgg a woon booy Médina yi que c'est possible est-ce que nga c'est possible gis naa ku ne ci àdduna toog naa ay doom président toog naa ay président toog naa ay star musique toog naa ay star football indi naa fi ay star football ah barki Demba Ndiaye laa toog ak di déjeuner ak benn président club bi gën a mag ci àdduna est-ce que dama kon ndamo doom Medina la lu war a mën a ne la loolu moo tax may toog ak booy di woon c'est possible une autre Médina aussi est possible mais ci kaw ñu gëm suñ bopp bàyyi détail waxu jigéen jigéen moo moom wax mais pas góor xam mais nag li xew xaw na xew jot na xew mais li may ñaan rek mooy weeru koor lañ nekk ne ñëpp nekk ci jàmm bu fekkee am na benn doomu Médina boo xam dama ko frustré wala dara maa ngi jégalu parce que nit matul mais damu bëgg rek ñu xam ne même bi jële jëlee position par rapport sax ak terrain gazonné bi dañ ko jël parce que dañu bëgg rek Médina développé Médina neex Médina baax mais am na yenn wax yoo nga xam mën na ñàkk parce que nag Fada ku ne na nga xam sa safaayu làmmiñ mais bul xam safaayu làmmiñu keneen. te defe naa lépp dañ ko war a teg ci yar exemple nga nit mën nga wax sa fula sa fayda wax ko ci yar man depuis affaire terrain bi bi mu njëkkee am ba léeg maa doon woote ñu retrouver woote dialogue ñu xool ban solution ah moom moo gën pour Médina ñu teg ko ñëpp nekk ci jàmm du dëgg loolu la rek